أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala ñaan ko mu wutuñu julee ñu ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaanal gërëm mboolem topp boobu ba bis penc wax mbokku jullit mu ngi nekkoon teeru barkeel bi ñu wax kitaabul axdar yi ñu ñëw tey ci ñetteelu ponk làpp làpp ñett la muy jàpp bii ma wax ngëneel li ci ne gis nga après euh, sangu moo ci tegu mm. ngëneel li ci ne ñetteel bi nag mooy tiim boo amul possibilité nag sangu amoo possibilité jàpp lislaam nee na bu mu tax nga neenal ko léegi demal nga tiim ndax jàngal nañ la ci gannaaw ne la nit li tax ndox moo koy laabal yàlla mu ko bind ci ndox mais nit nag maamam maam maamam maam aadama ci lan la ko yàlla bindee ci suuf kon nag boo amul ndox yow hmm. léegi dellul sa cosaanu maam muy mm-hmm. ndox maanaam mooy mooy suuf mm-hmm. bu ko defee nga laal suuf rek ku ne xam nit ni muy tiimee mm-hmm. loolu dindiwul sobe ndax jël sa loxo rek teg ci suuf raay sa kanam raay say loxo taxaw julli dañ la ko may rek waaye du lu mën a dindi euh, sobe moo tax faslu bi mooy bismillahi rahmaani yu faslun fi yatay fi tayammumi wa yatayammamul musaafiru fi gayri masiyatin wal maridu li faridatin aw nafilatin ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة والصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاد ونحو ذلك ولا يجوز بالجس المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره وسننه تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب wa fadaa'iluhu at-tasmiyatu wa taqdiimu al-yumnaa ala al-yusraa wa taqdiimu zaahiri az-ziraa'i ala baatinihi wa muqaddamihi ala mu'axirihi wa nawaaqiduhu kal-wuduu' wa laa tusallaa fariidataani bitayammumin waaxidin wa man tayammama li fariidatin jaaza lahu an-nawaafilu ba'dahaa wa masxu al-musxafi wat-tawaafu wat-tilaawatu in nawaa dhaalika wattasalat bis-salaati wa lam yaxruj al-waqt wa jaa'a wa jaaza bi tayammumi naafilati kullu ma dukira euh, wa man salla al-ishaa bi tayammumin qaama lish-shaf'i wal-watri ba'daha min ghayri ta'khirin wa man tayammama min janaabatin fala budda min niyyatiha mu wax ne euh, faslun tey teqale bi fi teye mu ngi ci tiim la hmm. tiim foo déggee nit def ka rek mooy am na ngàntal ndox hmm. su wat ka dafa amul ndox wala ndox a ngi fi mais moom moo ko mënula utiliser ngir feebar wala sedd bu bu koy lor wala nit koo xam ne nekkul biir këram dafa voyager te voyage permettre tout permettre la tout le temps ngay mën a am ndox hmm. moo tax mu ne woye teye moomu dina tiim al musaafiru aji tukki fi xayri masiyatin koo xam ne nag mu ngi tukki ci lu dul mooy yàlla waaye ki nga xam ne dafa sàcc alalu jàmbur doon daw ak moom nekkul ci voyage loolu mooy def lu mu doon mooy yàlla mhm. kooku bu tiimee julli du wér mhm. parce que illa euh, bi moo tax ki nga mhm. xam ne itam dafa dem dëkk dëkk ngir mooy jifa yàlla moo xam soirée la jëm wala benn xale bu jigéen bu mu fa war a dajal wala xale bu jigéen bu bëgg a dajek xale bu góor hmm. ñooñu condition yooyu kenn du ci tiim euh, de même que xale buy daw papam ak kuy daw yaayam ak ku daw kilifam ak yu mel noonu ak jàmm boo xam ne day daw sangam ñooñu seen voyage yooyu hmm. non seulement même bu ñu jàppee sax julli euh, la ñu def dafa xaram voyage bu ci boppam waxatuma ñu lay may possibilité ngay tiim hmm. moo tax mu ne fii xayri masiyatin ci dul mooy yàlla mais teewul nag kooku bu jullee bu jàppee julli dina wér mm-hmm. wal maridu ku feebar tam may nañ ko mu tiim nit koo xam dafa feebar ba effectivement ndox feebaru sedd bi mu am may ko muy tiimee mm-hmm. ndox mi da koy yokk mm-hmm. donte ndox mi mu ngi ci biir kër gi wala moom wét na wét goo xam mu ngi tëdd ci lal bi gisul sax condition ku ko mën a jàppale ba mu jug taxaw dem ci toilette bi jàpp ak mel noonu kooku bu amee suuf man na tiimal li faridatin moo xam farat julli farata la aw naafilatin wala naafila le fait que ngant am na rek julli yëpp mën nga cee tiim moo xam farata la wala loolu mooy bu njëkk bi kon voyageur dina tiim mais itam ki feebar te ne ci kër gi donte voyagé wul moom it dafa am ngant ñu ne xanaa kon ngant yooyu rek lañ jox mu ne même sax am na benn cas bu spécial koo xam ne feebarul dara jotu ko ba pare tukkiwul mu ngi ci biir kër gi dara jotu ko mais kooku may nañ ko mu tiim ñu ne lan moo tax mu ne moom ñàkk a ndox mooy tax wala ñàkk mën a jëfe ndox moo tax mu ne way yette yem moomu dina tiim itam alxaadiru ki fi teew ki ne ci këram ba pare saxiixu wér nga mooy contraire ñaari ñu ñu tudd muy bi ak malade bi kii nag du voyageur kon ku wér la waaye tam du du maanaam du voyageur kon ku ne ci kër gi la du itam ku feebar kon saxiix la même kooku mën na tiim lil faraidi ci farata yi mais waxuma sax naafila mais farata sax mën na ko tiim ida xaafa moom lii mooy tax bu dee ragal na xuruja waxtihaa génn ku waxtoom maanaam mu xam ne bu naree uti ji ndox amul te bu ko naree wuti ji vraiment waxtu dina génn te waxoon nañ la ne dabu waxtu moo ëpp ko doole dabu maanaam laab mm-hmm. kooku may nañ ko loolu mm-hmm. waaye nag wala yatayammamu du tiim alxaadiru kooku teew hmm. saxiixu ti wér kooku du tiimal li naafilatin ngir naafila hmm. lan moo parce que naafila waru ko hmm. léegi comme yow amoo benn ngant tiimal naafila moom wàcc na axa kay mën na ne bu fekkee kooku dafa am ngant maanaam daf fee nekk ba am lu tere euh, julli mën na tiimal farata bi muy tisbaar mais bu jullee tisbaar ba pare mën na ci teg nag yeneen naafile yooyu dina ko wax waaye tiim uniquement pour naafile kese. Hmm. déedéet nag ndax amoo ngàtt mais ki feebar moom mën na lool ki tukki itam man na lool. wala jumaa ci lu caaginu jumaa ndax itam jumaa kenn du ko tiimal di ko euh, julli lan jur lool parce que dafa am plan B. Hmm. jumaa ku ku ku mën la dem jumaa nooy def. julli tisbaar kon buy tiim tisbaar rek lay julli. Hmm. wala janaaza du julli du du tiim itam ngir julleeg néew. julli néew waxoon nañ la ci gannaaw ne fardu kifaaya la. Hmm. moom même bu dee farata itam dafa am ñu mu war ñii buñ ko taxawoo rek ña ca des mu wàcc leen. Hmm. comme yow d'abord eh, fardu kifaaya la te yaa ngi nii amoo njàpp léegi jarul ngay dem ba ca mbooloo ma naan da ngay kii ko. Hmm. tawal sa kër ñu ne xanaa dafa fekkul papam gaañu moom directement wala yaayam wala taawam wala doomam wala jabaram mu ne ah kooku nag mën la jàkk dem. kon kooku may nañ ko mu tiim. dem taxaw ji néewam boobu ndax moom moo war a taxaw moo wara a seede moo tax mu ne illaa ida taayyanat alayhi lu dul mu war ci moom ràññee ci moom janaazatu néew bi boobaa moom may nañ ko mu tiim mm-hmm. def loolu euh, léegi nag lan mooy faratay tiim mu ne wa faraa'idu nag ci ko am ngànte mooy an niyatu mooy mu yéene mm-hmm. ne vraiment waxoon nañ la ci gannaaw ne man salla bi gayri wuduin aamidan fa huwa kaafirun képp koo xam ne julli nga julli farata te yaa ko tay jàppoo euh, yëfër nga ñu ne nag pour daw loolu moo tax ak niyatu dafay yéene daganal julli maanaam istibaaxatu salaa lay jëkk nag ni yéene maanaam comme ku amul njàpp amoo droit julli nga ne maa ngi fas yéene à cause de ngante bi ma dal euh, jéem a daganal julli ci man maanaam maa ngi fas yéene tiim ngir jaamoo ko yàlla pour daganal julli hmm. wala daganal jaamu yàlla wa saidu taahiru bokk na ci beneen bu ñaareel bi mooy tiim faw dañ koy defee ci environnement boo xam ne suuf la suuf as said nag mooy kullu ma saada ala al lépp loo xam ne ci fa kaw suuf si la ne loolu moo suuf waxuñu la suufu be beñ comme désert bi hmm. ñu matière boobu rek mooy suuf déedéet lépp loo xam ne mu ngi ci kaw faasu suuf si hmm. ci suuf si loolu lañ tuddee suuf hmm. moo xam nag loolu kew la moo xam ban la moo xam neige la moo xam glace la bu nekk ci kaw suuf mais daal na ne ci suuf si rek nga xam ne lii suuf la hmm. mais kenn du tiime ci air bi kenn du tiime ci avion kenn du tiime ci lu ñu tabax ba pare et cetera moom daal kon suuf lay doon hmm. suuf bi nag moo xam nature bu mën a am hmm. ñu jàng géographie xam na ñu nature suuf si am na yoo xam ne ay xeer la am na yoo xam ay kew la am na yoo xam ne ay ban la am na yoo xam phosphate la waaye lu mën doon daal na doon suufee loolu kon mooy tax nga am ko mais ki nekk ci étage am mënul tiim hmm. kon foo mu wàcc ba ci suuf wala mu am matière boo xam ne ci suuf la lu mel ni ku wàcc ci suuf jël nag sa mouchoir def ci suuf wala ay ban nga teg ci sa kaw nekk kooku mën nga ko mën nga ci tim wa masxul wajhi bu ñetteel bi mooy masa kanam njàpp tim moom di wax ji compliqué compliqué ñaar rek la hmm. mooy masa kanam masa loxo yi door rek la jeex wax yiñ ci waxaat yëpp compliqué na am na ñu naan tiim dafa jafe tiim dafa tiim jafe jafewul tiim jafewul ndax plan B la luñ la may ni nga doon raxasee sa bopp hmm. nga ci jàpp bi hmm. noonu nga sëlëmoo sëlëmoo hmm. boo laalee suuf si loolu noonu ngay sëlëmoo rek raxas maanaam ra euh, raayaat say loxo ba ci conc yi jeex na ñaareel rek la wax compliqué wu wa masul yëleeni ak masa ñaari loxo hmm. ilal koo ay ba ci takku jara yi hmm. wa darbatul ardi ak dóor suuf si al hmm. wal fawru ak gaaw ci li ngay def wa wa duxulil waxti ak dugg waxtu li ngay tiim tiim moom mënul xaar moom mënul xaar benn bool la boo xam ne daal pour nga mën koo lekk day tàng jër bu xosee sedd rek doo ko mën a lekk ci moom kon da ngay tiim rek jug taxaw julli bokk na ci watti saaluhu nga jokkale ka bis salaati ci julli Euh, kenn mu ne tisbaar bi laay julli midi jot na damay tiim te tisbaar bi ñu ngi koy julli ci euh, maanaam quatorze heures et demi wala quatorze heures et quart hmm. déedéet tiim moom mënul xaar lool moom daal yow même booy julli sax ci jàkk wala mbooloo da xaar ba ñu li xam ba imaam ne allahu akbar nga soo ko tiim hmm. ndax dañ bëgg booy pare rek booy jug rek di taxaw moo tax doo doo tiim sax ba pare ñuy li xam ndax foofu man na am leneen lu fa dox ba duñ kàbbar hmm. da ngay bàyyi bañ kàbbar ba pare nga soog a tiim xam ne da ngay jug rek ne allahu akbar hmm. comme moo la waxoon nag pour nga tiim faw mu am environnement boo koy defee te mooy suuf moo tax mu ne wa saidu pàkk boobu ma la waxoon huwa turaabu lu yaatu la mooy lu suuf suuf su nooy si nga xam mënees na cee tiim hmm. nga ne man de fi ma dëkk ban moo fa am mu ne wa tuubu ak ban ban bi lu mu ñuul ñuul donte dafa tooy xet moom ban bi mënees na cee tiim. Hmm. wala xajaru ak xeer bu dee yow fi nga dëkk ay kew la. Hmm. nga xam ne daanaka boo fay gas bâtiment sax gis nga ni ngay sonne. Hmm. ñu ne amul problème kew boobu wala xeer boobu mën nga cee tiim. kii ne man Russie laa nekk wala Canada foofu dafa sedd guy ba daanaka pour nga gis suuf si da ngay gas gas ba sonn ndax foofu dafa neige mu ne amul problème ba thalju ak neige bi neige bi noonu nga ci tege sa loxo rek. tiim jot dafa tooy loolu. Euh, kii la waaye li dama ne ñi ñi ñi war a tiim ci nees bu dee ngàntal ñàkk ndox la xam nga moom loolu wàcc nees bi boo ko jëlee tàngal ko rek bu dof dox nga dem jàpp ji kon ñoom xam naa beneen ngànt rek la ñuy mën a am mais du ngànt ñàkk ndox moom hmm. wal xatu-xaatu ak remb-remb mooy foo xam ne nii dafa taw ba pare inondation am fa ndox ma jaxasoo ak suuf sa hmm. ba mel ni pat noonu hmm. wàññiwul dara teg ci sa loxo rek xam naa loolu nag problème la ndax boo ko diwoo kenn du xam looy niroon waaye loolu jàmm yàlla wala xudaalika ak yu mel noonu. ndax pat boobu ku ko tay sa kanam. Mm-hmm. boo génnee dinañ foog ne da ngay simb. Mm-hmm. walaay juus daganul nag lépp lu dénaturé mm-hmm. ci suuf. mënoo ci tim maanaam lépp loo xam ne jël nañ ko ci minerai bi après def ci ay changement euh, ouvrier yi liggéey ci loolu ba ba mu dénaturé wu ci wàllu suuf léegi nag mënatoo ci euh, maanaam tim mu ngi mel ni ciment ciment fan la jógee ci minerai bi. Hmm. kon suuf la woon. Hmm. Hmm? mais est-ce que ciment léegi suuf la déedéet dañ koo lakk kon mënatul doon suuf naturellement ndax dañ cee def ay pexe. moo tax mu ne walaay juusu noonu bir gis si. ci laso boo xam ne mag boo yi dañ koo togg. kon lépp loo xam ne dañ ci def ay miin génn loolu. Euh, tabaarakallaa moo xam phosphate la moo xam ciment la moo xam laso la togg ko ba mu ñor hmm. donte xeer bu ñu lakk la kon xeer boobu kenn suñu bâtiment yi ak suñu ci tiim hmm. parce que euh, ciment la te boobu dañ koo lakk hmm. wala xasiir ak laltaay mooy li ñuy tuddee tapis tapis bi ci mënul nekk wala xasha bi ak bant di nga ne waaw bant bi moom ci ci ci kii la jóge ci garab te hmm. garab gi mu ngi sax ci euh, suuf si hmm. mane mais garab nga wax mais est-ce que garab ci suuf la bokk leen hmm. dafa sax ci suuf waaye euh, bokkul ci suuf si wal xasiis yi ak ñax gazon bi itam mënoo ko jël da nga ciy tiim moo tax ku tiim ay gazon faw da nga ciy buddi quelque gazon ba jot suuf sa nag kekk nga ci ngay tiimee wa nax wi ak yu mel ni yooyu yu mel ni yooyu mooy lépp lu dénaturé wu rek hmm. donte ci suuf la jóge hmm. euh, loolu tabaarakallahu doo ci mën a tiim léegi nag ki nga xam ne dafa feebar ba tëdd ci lalam mënul dem jàpp ji amul itam ku ko dimbali waaye moom am na chance u néegu banko la dëkk mooy néeg yi nekk ci Fuuta ba tey nekk Bakel nekk fu mel ni Casamance nga xam ne ban bi lañuy jël tooyal ko def ci ay briques Mm. après tabax ko ñoom néeg yu neex la. Mm. da yëg ne dafay ame fraîcheur bu neex euh, parce que euh, dafa naturel. Mm. léegi néeg yu mel noonu ki ci dëkk te doon ko feebar buy tiim jarul muy jub mën na jël loxoom rek tay ko ci miir boobu. jublu ci tiim parce que effectivement euh, suuf la. moo tax mu ne waru yolomalef na lil maridi ci kooku feebar. mu tiim fii xaaitil xajar ci miiru xeer miir boo xam ne ay xeer xeer yi nga xam hmm. moom la ñu jël defe ko miir hmm. wa tuubi ak miiru ban mais kopp ci charte ndax loolu dafa yomb trop rek teg say loxo noonu illam yejit day fekk amul mu naa weleen ku ko jotale beneen suuf bu jógee ci suuf si direct rayrahu gudul bi hmm. ndax suuf si bu dena bu dénaturé wul itam xam nga gëj na ci mbokki suufam yàgg na fu ñu taxawu trop moo tax kon bu fekkee am na daal bi direct moo gën. Hmm. mais bu ko amul loolu may nañ ko ko. Hmm. loolu mooy farata yi mu ne nag wa sunanu wa sunna yi mooy tëjjiidu sax yi mu yeesal pàkk bi li yéene ci ñaari loxo muy ñaareelu dóor bi. Hmm. ndax farata bi moo doon benn dóor rek. nga maanaam dóor booy mooy jël sa loxo rek teg ci suuf. sa loxo takku jara moom ngay teg ci suuf après nga masaa bopp bi maanaam masaa kanam gi masaa loxo yi. loolu moo woon mais li gën mooy boo defee bopp bi euh, kanam gi ba pare nga defaat bu ñaareel. Ah. pour def loxo yi ba ci takku maanaam conc yi. Hmm. loolu sunna la. Hmm. boo ko bàyyi itam gis nga. Hmm. bu tey sa tiim nga. wa masu nga masaa ma baynal kuwaay ni ñu di nekk ci diggante takku jara yi ba ci conc yi nga gis war ñu faqañ ak conc yi. ba tërtiwu nga toftale leen itam nii ma la ko organiser nga gis ne kii loolu la wuuteeg njàpp mm. gis nga jàpp raxas say takku jara mm. moom lan moo fay atteem sunna la mm. ci jàpp mais et mooy contraire tiim tiim moom mooy massa ba say takku jara loolu mooy farata léegi massa te takku jara bi ba tonco yi bu dee ci njàpp loolu farata la bu dee ci tiim looloy sunna bi moo tax nit bu dóoroon loxoom benn yoon Euh, sëlmu maanaam sëlam kanam gi hmm. masaa loxo yi ba tàkku jare yi jug li xam julli dina wér ñaana rek la hmm. kon boo naan tiim dafa compliqué yow yaa ko bul compliqué ndax luñ la may la ba hmm. fadailuhu ngëneelu tiim nag mooy da ngay wax bismillahi rahmaani rahim fadail mooy mën duubaat ci rek yi ñu ko sotte bëgg nañ bala ngaa tiim nag nga wax bismillahi rahmaani rahim au moins nga da rendre le monnaie yàlla mi la may possibilité julli te jàppoo wa taqdimul naa ñu bëgg nañu tam nga jiital ndijoor bi alal yusra ci càmmiñ gis nga arab yàlla da koo may mu mën a wax hmm. yadul yemin yemin mooy hmm. mooy firi ndijoor hmm. mais yemin li muy firi mooy barke yumnun wa hubbun yumnun mooy barke léegi ñu ne mais gauche ñoom ñu ngi ko tuddee al usra usra mooy ndax nga manœuvrer ko day xaw a jafe moo tax ñu tuddee ko lu jafe tey sa loxo euh, càmmoñ buñ la ci liggéeyloo woon une heure de temps rek. Hmm. di nga am problème. Hmm. Hmm? ndax da gis ne lu bari du ko man de même ko tànk gauche bi. ba tax koo dégg ñu ne gauche la. kéemaan lay doon. looloo tax ñoom arab ñu tuddee que usra mooy lu jafee manœuvrer. mais ñoom pour euh, fël tax na maanaam wax ju rafet tax na au lieu que usra jafe rek ñoom ñu tuddee que yusra lu yómbali. Mm. te fekk contraire bi lañ ci jublu. Mm. ndax bëgguñu dara jafe ndax jullit dara waru ko jafe. Mm. moo tax nag léegi yow booy booy booy booy tiim euh, maanaam nga jiital loxo ndijoor bi ci loxo càmmeñ bi. parce que tiim nag lenn rek moo fa am loo xam ne gauche la ak droite muy masa loxo yi. ndax kanam bi moom amul gauche ak droite foofu moom. Euh, da ngay masa kanam rek lañ la wax. wa taqdimu nga jiital zahiri ziraa yi biti xasab bi ala yi ci biiram. maanaam xasab boo gis boo déggee ñu ne xasab mooy diggante conco yi ba takkukaay jaray ba fi ngay takk mont loolu nag ñu la ko tuddalee dafa mel ni benn yat buñ taxawal nii boo ko tàllalee day mel ni yat yat bi nag automatiquement boo ko tàllalee rek day am en haut ak en léegi nag ñu wax ne li gën mooy nga jiital en haut ci basaa bi par rapport ak en bas wa muqaddimihi nga jiital li ñu njëkkee alaamu mu axiri yi ci li ñu mujjël yii mooy ngëneel li organisation rek la euh, tim nag lan moo koy toj ñu hmm. ne tim mettiwul tim comme moom rakku njàpp la hmm. léegi lépp lu doon toj ñàpp rek hmm. dafay toj tim moo tax ne war na wàqduhu li koy firi kal wudu mook njàpp ñoo yem excepté nag lii mu bëgg a wax mooy walaatu salla deful mën a julli faridataani ñaari farata bi te yamumin waaxidin ci benn tim loolu itam la wuuteeg njàpp njàpp moom mën nga julli mën nga jàpp fajar hmm. julli ci suba hmm. après boo mënee muñ ba tisbaar mën nga ko cee julli bu tojul hmm. tàkkusaan noonu timis noonu géewe noonu fekk daal njàpp mi tojul yow mën nga cee julli ci cinq prières yëpp or que nag tiim mënul loolu tiim moom nee la mënul yàgg ndax foofu fi jullee farata ba pare mënoo ci boo ci jullee tisbaar boo ko muñoon itam ba tàkkusaan doo fa mën a julli tàkkusaan foofu nga tiimaat tiim bu bees hmm. waaye nag yeneen naafile yu dul farata mënees na ko cee def hmm. waman tayammama képp koo xam ne dafa li faridatin ci farata moo xam tisbaar la wala tàkkusaan jaaza lahu dagan na ci moom an nawaafilu ba'daha mu naafile ci leneen lu ko soobaat ci gannaawam hmm. euh, naafile rek moo ci dagan mu ne déedéet wa masul mushafi mën na cee laal kaamil maanaam moom mën na jël kaamilam toog jàng wa tawaafu mën na cee tawaaf kaaba ga bu fekkee fa la ne wa tilaawatu mën na ci jàng alquran waaye innawaa pour mu wér day day yéene zaalika loolu man de maa ngi fas yéene julli tisbaar waaye am naa yéene defaale ci nangam ak nangam ak bu fekkee tàkkusaan la bu dee taalibi tiyan man na ne bu ma jullee pare am naa yéene laazim ci wasifa waale ci dina dagal waaye nag wat tasalat day fekk mu yéene loolu ba pare wat tasalat mu jokkale ko nag ak bi ci julli ndax comme tiim moom mënul yàgg loolu moom booy sëlmal farata gi rek ci ngay ci ngay enchaîné waale loolu mm. waaye boo fi jugee dem boutique ba ku ne nga dem waxtaan ak moom mm. ñëwaat naan non man de tiimoon naa sànq du mën a nekk mm, faw mu jokkale ko julli gi wala mu yaxruj te génnul al waxtu waxtu wa mais bu waxtu génnee itam fekk na valable ba jaasa dagan na bi tayammumin naafilati koo xam ne nag dafa tiimoon ci naafila mm. te waxoon nañ ne ne musaafir man na koo def ak mari ku mm. feebar mm. léegi moom dafa tiimoon pour def ay naafila yu mu daan def xëy na ñeenti rakka yu mu daan def guddi gu ne tey nag mënu la jàpp mu def ko moom ci biir naafila boobu mën na ci jul defaale kullu ma zukkira lépp lu mu ci tuddaale man dëgg la sax am na ñeenti rakka yu ma daan def dinaa ko ci def waaye amaale naa yéene defaale saatu tasbih amaale naa yéene jàngaale ñeenti juzu alquran amaale naa yéen a def dog sàngam. Hmm. yooyu yëpp mën na ko ci defaale après naafile bi. Hmm. di leen faridata lu dul julliwaat ci farata. Hmm. leer na ndax benn tiim kenn mënu cee julli ñaari farata. muy tëj nag ne waman sollaa ku julli al isha geer bi te yemunuñ ci tiim jarul sax loolu yéene xaama mën na cee jug julliwaale li shaf ci shafa wal witr ak witr ndax ci naafile la bokk baax daa ci gannaaw gi. waaye nag ci charte min xëyri taaxiirin du ko yeexe mhm. ndax faw mu jokkaloog moom wamante yàmmama léegi nag lislaam indi beneen atte boo xam ne xéwal ku rëy rëy ki nga xam ne nii dafa ñàkk ndox ba mënul tiim mhm. kooku itam bu amee janaaba nan mhm. Hmm? xam nga ki nga xam ne ñàkk ndox mu mu tiimee kooku fan lay jëlee ndox mu mu sangu malaat bi nga xam ne nii moom it feebar bi ko dal ci sedd mayu ko pour mu war a tiim kooku bu ko janaaba dalee donte sàkku ko kooku fan lay jàppe fan lay mën a sangoo lislaam ne comme kooku ngante bi ko tere woon tiim maanaam ngante bi ko tere woon jàpp moo ko topp ba du mën a sangu may nañ ko donte mu ngi janaaba mu mën a teggi janaaba bi momentanément ba ba muy mën a utiliser ndox mm-hmm. luy loolu mu may nañ ko mu jël suuf tiim mm-hmm. bu tiimee julli julli googu muy def moom du dafa lab mais istibaaxatu salaa luñ ko may la rek promotion bu mu mën a jullee ndax itam waru fi toog rek di tegle julli yi di ko xaar di ko xaar ngir parce que dafa am janaaba hmm. xam nga loolu teranga ju rëy la hmm. jigéen ji nga xam ne baax ba set amul ndox mu mu sangoo mën na tiim julli julli ji dañ ko ko may hmm. mën na tiim naafila mën na tiim werd yenn werd bi de même que euh, jigéen ji amoon doom ba moom it mu pare moom it la même chose mën na def loolu hmm. de même que góor gi nga xam ne jote nag soxnaam a amee na janaaba moo xam mu ko mën a amee mën nañ ko defal loolu de même que te kenn mënu koo sang mën nañ ko tiimal hmm. moo tax mu ne wa jaaza waman tayammama ku tiim nag yow moomu nga xam ne nag tiim kenn waru ko woon a defal janaaba hmm. waru woon am mais yàlla moo ñu ko may ngir teraangam ak mbaaxam kon nag yow moomu léegi bu boobaa booy tiim est-ce que yéene ji nga amoon ci bi ngay jàpp bi nga ñàkkee ndoxum jàpp tiim boobu remplacer jàpp mi est-ce que même yéene bi moom nga war a am booy tiim pour sangu farata maanaam ci booy boo bëggee tiim ngir remplacer ko sangu farata ngir tegg janaaba est-ce que benn lay doon déedéet du mën a doon benn ndax bii sobe bu mag la janaaba nga bëgg a teggi kon boobu fa nga yéene mooy ma fala budda manta ñàkk min niyatiha ci yéene ne maa ngi fas yéene teggi janaaba bii ngir daganal julli ci man maanaam kon julli boo tiim boo xam ne njàpp la remplacer li bëgg a wax bokkul ak tiim boo xam ne sangu la remplacer il fallait que nga définir ko préciser ko yàlla de maa ngi fas yéene tiimal Euh, janaaba bii ngir jaamoo la ko hmm. waaye itam ngir daganal ci julli gi nga xam ne araamoon na ci man hmm. loolu moom mooy tiim mu des nag nan la ñuy tiime ñi hmm. ñuy tiime yomb na yiñ la wax muy kullu ma saada ala lépp lu nekk ci kaw suuf rek moom ngay jël nga tàllal sa ñaari loxo yi nga xam ne eh, njaayeen bi buy añ moom lay danke ceeb loolu moo tudd tënk loolu moom lay dindi lépp loo xam ne nag takk na ko ci y jaaru Euh, wala yu mel noonu daf koy dindi ba mu set léegi nag mu jël loxoom dóor ko ci suuf si buñ nga waxee dóor maanaam dañuy bañ nga nga raay noonu suuf si da ko ci war a teg hmm. ba bu doon suufu joor loxo yi day xaw a dugg ci biir hmm. loolu moo tax ñu di tuddee ko dóor mais waxuñu dóor bu baax déedéet da ngay teg rek loxo bi noonu ba mu laal carrément suuf si nga xam ne der yëpp day tegu ci suuf léegi nag nga teggee ko ndànk lislaam nee na bëgg nañ nga fëgg ko tuuti. Hmm. fëgg boobu mooy lépp lu ci war a taq ci bant wala ay xeer. Hmm. pour mu bañ la gaañ pour loolu wadd. Hmm. léegi nag yow direct sa kanam nga jëm. bu fekkoon nga takk ay verre ak yu mel noonu danga koy dindi. léegi nag nga nga sëlmu comme ni nga moo woon rek bi ngay jàpp matale kanam gi muy longueur bi ak largeur bi comme ni ñu ko waxee woon ba ci put gi. loolu boo ko defee farata kanam gi pare na jeex na. léegi nag nga defaat ko ñaareelu yoon mooy da ngay dóoraat sa loxo ci suuf mm. léegi nag nga masaa sa takku jara yooyu noonu nga xam ne moom moo doon moom nga doon dóore maanaam suuf si léegi nag boo ko defee ba pare mm. nga jël nag càmmeñ bi sa loxo càmmeñ def ko ci sa gannaaw baaram yooyu ci ndijoor bi mm. léegi nag nga attaqué takk maanaam nga attaqué xasab bi mooy diggante takku jara bi ba ci conco yi moom ngay attaqué mais ci gannaaw bi mooy zahirihima ala batinihima boo ko attaqué di dem ak moom ba ca conco yi après nga wër ko ndomb boo ko wëree ndomb nga ëlbati loxo bi nga duggaat ci biir bi nag biir bi léegi nag boo ko demee ba ñëwaat ba ci baaraam yi après nga topp di xalil baaraam yi benn par benn ba juróom yi mat de même que noonu ngay defaat ci gos bi mooy loxo ndijoor bi Euh, moom ngay jëlaat baaraam yi def ko ci gannaawam léegi nga wëraleeg moom wëyale ko ci li ñuy wax ci làmb wëra wër ko ndomb ba ci takku jara yi maanaam ba ci conc yi nga ëlbatikuwaat ñëwaat euh, ci maanaam biir bi ñëwaat ba ci baaraam yi nga xalil ko loolu moo tudd tiim nga soog a jug julli loolu képp ku ko def lépp lu aramoon ci yow ci tabaarakallah ku xeetu jaamu yàlla hmm. loolu mel leen dagal Hmm. léegi nag ñetti làpp yi la ñu wax ne kenn mënu koo defal kenn ci mbindeef yi kenn hmm. ku ne yaa war a xam nan la ñuy fóotee sa yére hmm. muy taxaaratu xabas nan la ñuy fóotee sa yére ak drap bi ngay toog ak yére yi ngay sol et cetera ba ci euh, tubéy yu ndaw yi ngay flottant yeeg sous-vêtement yëpp yow yaa ko war a defal sa bopp ci góor ak ci jigéen. de même que yow nit kooku yaa war a xam nan lañuy ñuy jàppee. de même que yow nit kooku yaa war a xam nan la ñuy sangoo farata. te même que yow yaa war a xam lan la ñuy defee teyam moom tiim. lii kenn du ko xamal kenn. képp koo xam ne matal nga ko nag mën nañ wax ne sa laab mat na. yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi gën a laab bi max di fadli wa juudihi. wasalaamu aleykum wa wa barakaatu.